ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre ci seen bi di Likzo TV mais gars ñu déglu jimboor yi li nga xamante ne bi wax na ko ci Tange Tandian comme que Tange Tandian moom day wër day yàq der rek gars ñu déglu ko. kii nag mooy Tange Tange dinaa la woyal way coon sekk bi de bàyyi leen di bàkkaar wax lu la wóorul du léebi neen lislaam daf koy aay gis nga fii ay nit yoo nit ñoo fi nekk di dégg yaa ngi dégg bëgg bës bu mu la jaral yii benn caméra benn machine nga yor. tojoo fenn léegi nañ leen ko déglu ba pare ma ñëw wax leen aca ko dëgg munoo ko dëgg te combat boobu tant que Pape Demba Thiam Régis Essen bi moom xam nga TV nanguwul négociation mu ne léegi kat bàyyi naa lépp teggi naa nga def si suuf te soo bëggee loolu it da ngay xool moom charge yu mu def yëpp nga fay ko ko ndaxte ba mu signé ak yow dafa jaay këram jaay terrain lépp investir ko ci làmb ji Luc Nicolas ak boobu su la dalee sax lu baax mu doonoon prolongation bu mu leen di loon ci report combat Modou Lo Ama Baldé ci faux et usage de faux ak tappale njuuj njaaj bi nga xamante ni promoteur bii soi-disant amul licence c'est nee moo tëgg làmb bi muy Luc Nicolas waaw c'est bon xoola kii nii lii moo leen di wan ni waxul dëgg Luc Nicolas ñaata at yéen a ko gis muy tëgg ay combat moom nee na dèjà Lutte Nicolaï amul amul licence waa lutte bu amul licence kan mooy am licence laa leen di laaj kan mooy am licence su fekkee amul licence man Sénégal Lutte nikolaay amul licence kooku laa leen di wax ni bu fekkee Tange wax na ko dëgg la wala du dëgg ba pare ñoom Modou Lo Balla kan moo leen fi indi kan moo leen njëkk a boole grand combat kenn ku nekk mu fay ku 10 millions nee na Pape Demba lay waxal Pape Demba bi muy waxal mu seex ak lit Nicolas xanaa kooku amul gémmañ tans gëmal yàlla ngir yàlla ak yonent bi nga jàpp beneen liggéey bu dul bii bërki demb nee nga problème mu Waly Seck bi yëg nga ni yëgoon nga ni du yéeg du yéeg bi nga ko yëgee dans une semaine yow ngay lantinoor noor mën a téye diw xoola bu ko leeroon naññ génn na taal ko bu yàgg ngir yàlla ak yonent bi gis nga Sénégal xam la moo ko tardeel nit di liggéey nit daggee ca làng ga di koy yàqal kii bi ñaari làmbam rek mën na laa jënd jënd li nga am yépp lan moo tax nit ki bu yoree entreprise am keneen daggee ca làng ka pour daaneel entreprise boobu est-ce xam nga entreprise boobu ñan ñoo ko boot Max Mbargane ñaata at la def ak Luc Nicolaï Mbaye Diagne moo nekkoon manager yikk Yékini ñaata at la def ak Luc Nicolaï ba pare nit ki boo bëggee xam ni mu mel da ngay xool àndi daawam àndi daawam ba léegi mi ngi ànd ak ñoom ànd ak ñoom chaque jour mu ànd ak ñoom yow ana say àndi daaw